geero geer ñaa ngi nii daal muhammadu rasulullah abdallah baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na sama ñëw fii tey nee sama ñëw fii tey dara waralu lu ko lu soññu njaboot gi. soññu njaboot gi. ñuy ay xale. ñuy ay xale. di yëngatu ci diina ji. di yëngatu ci diine di yëngatu ci tariqa bi. di yëngatu ci tariqa bi. bëgg Tiwaawan. bëgg Tiwaawan. ma bëgg leen a soññ. ma bëgg leen a ci ci. gën leen a dëgëral. gën leen a dëgëral. ci loolu ñu nekk. ci loolu ñu nekk. kon sama teewaay. ne kon sama teewaay. dina dina dina waral loolu. dina waral loolu. mooy. mooy. man damay faral di wax gaa ñi ma ni leen. damay faral di wax gaa ñi man leen. man damaa noppalu. man damaa noppalu. ku noppaluwul yaa xam. nee na ku noppaluwul yaa xam. noppalu gi lan la. noppalu gi lan la. jigéen a fi ne. ne jigéen moo fi ne. alal. alal. xam-xam. xam-xam. wilaaya. wilaaya. ñeenti ñi ku ma ci dikkal. nee ñeenti ñi ku ma ci dikkal. man maam Malick ma am fu ma la xaar. man maam ma am fu ma la xaar. bu la jigéen dikkalee. ne bu la jigéen dikkalee. di la jaay taar. di la jaay taar. di la di la peer njaayu. di la per njaayu. ak nu mu mën a mel. ak nu mu mën a mel. moom ndaw sax moom ndaw sax ci taar. ci taar boo bëggee noppalu ci moom. boo bëggee noppalu ci moom. xaar ko xaar ko bu màggatee. bu màggatee ku màggat ñaaw ku màggat ñaaw. du benn ngoog. nee du benn ngoog. mu des alal. mu des alal. borom alal. ne borom alal. di la jaay alal. di la jaay alal. boo bëggee noppalu ci moom. boo bëggee noppalu ci moom. xaar ko ci doylu. xaar ko ci doylu. borom alal. borom alal. boo ko bëggee boo ko boo ko bëggee jaaxal rek. boo ko bëggee jaaxal rek. xaar ko ci doylu. xaar ko ci doylu. boo doyloo rek. boo doyloo rek. jaaxal ko jaaxal ko. mu des xam-xam. nee mu des xam-xam. borom xam-xam. borom xam-xam. bu may jaay xam-xam. bu may jaay xam-xam. ma xaar la ma xaar la. ci borom Tiwaawan. ci borom Tiwaawan. borom parasol ba borom parasol ba. sëriñu sëriñ si sëriñu sëriñ si. Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick nitu yàlla. nitu yàlla. di la jaay wilaya. la jaay wilaya. nga xaar ko nga xaar ko. ci borom photo bi ci borom photo bi borom bonekaare bu njëkk bi Serigne Babacar si Serigne Babacar si mu jeex tàkk. kon tey. ne kon tey. bu ma daggee samay soxla. bu ma daggee samay soxla. bàyyi samay ittee. bàyyi samay ittee. jóge ba Tiwaawan. jóge ba Tiwaawan. te bu ma fi jógee damay delluwaat. te bu fii damay delluwaat Tiwaawan. incha allahu taala falaa fa seenee fanaani. incha allahu taala falaa fa seenee kon. ne kon. njaboot gi seen taxawaay. njaboot gi seen taxawaay. ak ñu nekk ay ndaw. ak ñu nekk ay ndaw. bëgg diine ji. bëgg diine ji. bëgg tariixa bi. bëgg tariqa bi. bëgg Tiwaawan. bëgg Tiwaawan. moo waral ma ñë ma sagal leen. looloo waral nag ma sagal leen. lu ma dul may ñu bari. lu ma dul may ñu bari. ma may leen ko tey moom ma may leen ko. ñu waxaat ma leneen loo xam ne ñu waxaat ma it leneen loo xam ne. man Tiwaawan rek laa am. man nag Tiwaawan rek laa am. Tiwaawan rek laa bëgg. Tiwaawan rek laa bëgg. Seydi Hadji Malick rek laa am. Seydi Hadji Malick rek laa am. Seydi Hadji Malick rek laa bëgg. Seydi Hadji Malick rek laa bëgg. ñu ni ñoom. ñu ni ñoom. dañoo bëgg. dañoo bëgg. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. lépp loo xam ni. lépp loo xam ne. am nañ ko. am nañ ko. ñu dajale ko. ñu dajale ko. ñëw Tiwaawan. ñëw Tiwaawan. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. def ay waañ. def ay waañ. di togg. di togg di jox nit ñi di jox nit ñi ca gàmmu ga ca gàmmu ga loolu am na solo de loolu de am na solo waaw am na solo loolu lañ ma wax mhm. alal jooju mënoon nañ ko jël def ko feneen alal jooju nee mënoon nañ ko jël def ko feneen wala déet wala déet ah ma ni alal jooju mënoon nañ koo jël def ko alal jooju mënoon nañ koo jël def ko feneen ci lu ñàkk fayda def ko ci lu ñàkk fayda loo xam ni loo xam ni investissement la boo xam ne investissement la boo xam ne. dañ cay perte. dañ cay perte. xam nga boo investiree. xam nga boo investiree. dërëm dërëm. war nga fexe ba. war nga fexe ba. dërëm ba dërëm ba. jur fukk. jur fukk. fukk ba fukk ba. jur téeméer. jur téeméer téeméer. téeméer jur junni. jur junni waaye. waaye boo investiree. boo investiree. fukk fu fukk. nga perte. nga perte ba dërëm. ba dërëm léegi nga daw. léegi nga daw. kon booy investir. ne kon booy investir. da ngay investir ci yàlla. dangay investir ci yàlla. yàlla la ñuy lebal. yàlla la ñuy lebal. yàlla boo ko lebalee benn. ne yàlla boo ko lebalee benn. mu fay la fukk. moom bu lay fay la fukk. fukk. fukk téeméer téeméer téeméer téeméer junni junni junni million million million million milliard milliard koo ko jara lebal yàlla moomu moo jara lebal kon bu ngeen defee loolu kon bu ngeen sàkkee waañ woowu ñëw Tiwaawan ñëw ba Tiwaawan jël seen alal. ngeen jël seen alal. def ko ci Seydina Muhammad. ngeen def ko ci Seydina Muhammad. muy gàmmoom. muy gàmmoom. muy muy juddoom. muy bisu juddoom. waaw muy bisu juddoom. muy bisu juddoom. xam nga. ne xam nga. maa la bëgg. maa la bëgg. maa la gëm maa la gëm maa la wóolu maa la wóolu waaye jaraloo ma dara waaye jaraloo ma dara sunu sëriñ Cheikh Seydi Mouhamed Mansour ne sunu sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour daan na wax ne loolu mënul nekk daan na wax ne loolu mënut a nekk nit boo ko bëggee nit boo ko bëggee gëm ko gëm ko wóolu ko wóolu ko doyloo ko doyloo ko daf laa war a jaral dara daf la war a jaral dara maa la bëgg rek maa la bëgg rek. ci làmmiñ ci làmmiñ déedéet. déedéet wóorul wóorul. ba mbëggeel. mbëggeel da nga koy fas. dang koy fas. ci sa xol ci sa xol. tudd ko tudd ko. ci sa làmmiñ ci sa làmmiñ. jëfe ko jëfe ko ci say cër say cër. nit ñi gis nit ñi gis. loolu nag. loolu nag dafa bokk ci. dafa bokk ci. jëfe cofeel. jëfe cofeel. ci say cër. ci sa cër. ndax Seydina Muhammad. ndax Seydina Muhammad. moo wax ni. moo wax ne. maxtulita. maxtulita. xubbi xubbi. bi qalbi ahadin. bi qalbi ahadin. illaa waqad xarrama minan naar minan naar yonent bi nee na yonent bi nee na bépp xol boo xam ne bépp xol boo xam ne ku ko xar ku ko xar fekk ca fekk ca sama cofeel sama cofeel man Muhammad man Muhammad yaram wa ëmb xol ba mais yaram wa ëmb xol ba xaraam na sawara xaraam na sawara parce que moo ko wax nee na lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mu ni bépp xol boo xam ni mu ne bépp xol boo xam ne ku ko xar ku ko xar fekk ca sama cofeel fekk ca sama cofeel man Muhammad man Muhammad yaram wa ëmb xol ba nee na yaram wa ëmb xol ba xaraam na sawara kon Mouhamad. ne kon Mouhamad. ku ko bëgg. ku ko bëgg. sopp ko sopp ko. te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci yow. sa yaram na sa yaram xaram na sawara. kon Seydil Hadji Malick. kon Seydil Hadji Malick. bu wootee Tiwaawan. bu wootee Tiwaawan. ni ku may yaakaar. ne képp ku may yaakaar. may sa sëriñ. may sa sëriñ. bu bis ba jotee. bu bis ba jotee. ñëwal ànd ak man. ñëwal ànd ak man. ci mbég moomu. ci mbég moomu. feeñal sa cofeel. feeñal sa cofeel. ci Sayyiduna Muhammad. ci Sayyiduna Muhammad. ndax tey. ndax tey. tey. tey. koo xam ni. koo xam ne. boo ko teralee. boo ko teralee. yàlla teral na ko. yàlla teral na ko. boo ko teralul. boo ko teralul. yàlla teral na ko. yàlla teral na ko. boo ko màggalee. boo ko màggalee. yàlla màggal na ko. yàlla màggal na ko. boo ko màggalul. boo ko màggalul. yàlla màggal na ko. yàlla màggal na ko. loolu dafa mel ni. loolu dafa mel ni. bërigo. bërigo bu nekk ci mbartal. bu nekk ci mbartal. boo poussé. boo poussé mu dem. mu dem boo puusul. boo puusul mu dem. mu dem kon tegal sa loxo rek. kon yow tegal sa loxo rek. inna allah inna allah. muy alquran. muy alquran. wa malaikatahu. wa malaikatahu. yusalluuna. yusalluuna. على النبي على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما تسليما kon ku yàlla màggal kon nag ku yàlla màggal ku ko màggalul ku ko màggalul du ko saf kooka du ko saf kooku kooku mooy Seydina Muhammad kooka ay Seydina Muhammad kooku mooy Seydina Muhammad kooku mooy Seydina Muhammad Seydi Hadji Malick nag nee Seydi Hadji Malick nag moom moom mu ni kon nañu màggal guddi judd nañu màggal judd kooku. mu ne kon nag nañu màggal juddi guddi judd kooku. xam nga kooku ba mu juddoo. ne xam nga kooku ba mu juddoo. moom Seydina Muhammad. moom Seydina Muhammad. dafa am benn baayam. dafa am benn baayam. bu ñuy wax Abu Lahab. bu ñuy wax Abu Lahab. Abu Lahab. ne Abu Lahab. ak baayu Mouhamad. ak baayu Mouhamad. muy Abdullahi. muy Abdullahi. ñoo bokk baay. ñoo bokk benn baay. Abdul Muttalib. Abdul moo leen jur moo leen jur. bi Mouhamad juddoo. bi Mouhamad juddoo. comme ni ba mu juddoo. ba mu juddoo. mooy fukki fan ak ñaar. te mooy bisu fukki fan ak ñaar. ci weeru gàmmu. ci weeru gàmmu. Seydi Hadji Malick wax ko ca xilaas ba Seydi ba. wala nuuniya ba wala boog ca nuuniya wax na ko ci xilaas wax na ko ca xilaas wax na ko ci nuuniya wax na ko ca nuuniya dafa ni wa aamun dafa ne wa aamun summa shahrun summa shahrun summa yawmun summa yawmun ata fihi lhuda ata fihi lhuda qarnul quruni qarnul quruni sururun sururun fi sururin fi sururin fi sururin fi sururin waidun duna waidun duna ayadul uyuni ayadul uyuni rabiun rabiun wasina wasina fihi fihi shahirun bi aamil fiili bi aamil fiili yawman yawman ba'da nuuni ba'da nuuni wa mawliduhu bihi sharafun waqirun xayrun taadimi taadimi in jaaxaw sujooni mu ni waa amun at mu ne waa amun at ataa bopp judd na ataa na fii ca at ma fii ma alhuda alhuda jëmm njub ga jëmm njub ga xarnul quruuni xarnul quruuni kay sangu sang kay sangu sang ya suma shahrun suma shahrun topp weer topp weer ataa ataa bopp na bopp fii fii weer wa ca weer wa alhuda alhuda jëmm njub ga jëmm njub ga xarnul quruuni xarnul quruuni kay sangu sang kay sangu na bopp fii fii ca bis ba ca bés ba alhuda alhuda jëmm njub ga jëmm njub yëpp day yooyu yëpp sururun sururun mbég la mu dellu mu dellu ca bés ba ca bés ba fii suruur yi nekk nekk ci biir mbég ci biir mbég mu dellu mu dellu ca weer wa ca weer wa fii suruur yi nekk nekk ci biir mbég ci biir mbég mu dellu mu dellu ca at ma ca at ma bis bés mi ngi ci biir ci biir weer weer weer weer nekk nekk ci biir ci biir euh, at at wa iidun wa iidun feet la feet la duuna ayaadil uyuuni boo xam ni boo xam ni bokkul ak bokkul ak benn feet benn feet mu ni rabiun mu ne rabiun weeru gàmmu la weeru gàmmu la weeru gàmm weeru gàmm rabia rabia mooy rabiul awal mooy rabiul awal mooy weer wi mooy weer wi ñu nekk nii mu ni wassina mu ne wassina bisu altine bésu altine shahirun shahirun aji siiw la aji siiw la fiihi fiihi ca ca juddu ko bi amil fiili bi amil fiili ci atum ñayya ci atum ñayya baada nuuni baada nuuni gannaaw juróom fukk gannaaw juróom fukk yow man yow man ci bis ci bis mu waxaat mu waxaat moom Seydi Malick moom Seydi Malick ci xilaas ba ne ci xilaas ba ne wa innahu wa innahu fi rabiil fi rabiil awwal intashar awwal intashar fi hubbihi fi hubbihi waajifaatu shawqi waajifaatu shawqi li sadimi li sadimi mu wax fee mu wax fee bis ba bis ba weer wa weer wa atma atma fii fii mu wax fii mu wax fii bis ba bis ba weer wa weer wa atma at kooku ba mu juddoo nag kooku nag ba mu juddoo bañ koo waxee baayam boobu bañ koo waxee baayam boobu muy abu lahab muy abu lahab ko keroog keroog jaamam bu ñuy wax suway bëtu jaamam bu ñuy wax suway batu moo ko wax xabaar bi moo ko wax xabaar bi jaamam bu jigéen jaamam bu jigéen ni ko sa rakk sa rakk jëdey ne ko sa rakk jëdey tafaatu tafaatu abdullahi muy abdullahi soxnaam soxna sa mucc na mucc na mu ne ko lu ma am mu ne ko lu mu ni góor mu ne ko góor nee nañu keroog nee nañu keroog abu lahab abu lahab dafa kontan dafa kontaan dafa kontaan dafa kontaan ci juddug Muhammad ci juddug Muhammad ba goreel jaam ba ba ko wax xabaar ba abu lahab abu lahab keroog keroog dafa kontaan. dafa kontaan. ba goreel jaam ba ko wax xabaar ba. ba goreel jaam ba ko wax xabaar ba. ñu ni waaw kon. ñu ne waaw kon. Abu Lahab moomu. Abu Lahab moomu. comme Seydina Muhammad. comme Seydina Muhammad. bisu altine la juddu. bisu altine la juddu. nee nañu. nee nañu. Abu Lahab. Abu Lahab. rakkam. rakkam. Abbas. Abbas. dafa gént. dafa gént. gis abu gis abu lahab gis abu lahab ci melokaan wu ñàng-ñàng mu nekk ci melokaan wu ñàng-ñàng melokaanu texee di melokaanu texee wa di maanaam ku nekk sawara maanaam ku nekk sawara mu laaj ko ne mu laaj ko moom Abbas moom Abbas laaj laaj Abu Lahab laaj ko Abu Lahab ni ko Abu Lahab ni ko Abu yow yow sa melokaan wii de sa melokaan wii de du melokaan bu baax du melokaan wu baax dafa mel ni yow da ngaa texee dafa mel ni yow da nga texee di dem sawara da dem sawara mu ni ko Abbas mu ni ko Abbas wax nga dëgg de wax nga dëgg de bi ma faatoo ba léegi bi ma faatoo ba léegi maa ci xaal bi maa ngi ci xaal bi maa ci melokaan maa ngi ci melokaan wii seetlu naa daal seetlu naa daal Eh, talaata. talaata. àllarba. àllarba. alxames. alxames. ajjuma. ajjuma. samedi. samedi. dimanche. dimanche. mbugal yu méttee méttee mbugal yu méttee méttee métti ci laa nekk ci laa nekk aw ma jàmm aw ma jàmm aw ma salaam aw benn bis daal benn bés daal laa gis ni laa gis ne luñ ma daan mbugal luñ ma daan mbugal ci fan yii ma wax ci fan yii ma wax lu mu métti métti lu mu métti métti bu doon junni bu doon junni bu altine bu altinee dañ koy wàññi dañ koy wàññi ba mu nekk fukk ba mu nekk fukk lan moo ko waral lan moo ko waral la mu kontaanoon la mu kontaanoon ci juddug Seydina Muhammad ci juddug Seydina Muhammad waaw kon yow ci altina kon yow altine ji ci altine ja bisu altine rek bisu altine rek la ñuy woyofal mbugalam waaye yeneen bis waaye yeneen bis yoo talaata talaata àllarba alxames alxames ajjuma samedi samedi dimanche day métti tar tara waaye altine waaye altine moom buñ ko doon mbugal buñ ko doon mbugal ca yee ca yee junniy mbugal junniy mbugal bisu altine bisu altine bi yonent bi juddoo yonent bi juddoo te mu kontaan ca mu kontaan ca ba goreel jàmm ba goreel jàmm ba eh, dañ koy wàññi dañ koy wàññi ba mu nekk ba mu nekk fukk ñu ni waaw kon yow ñu ni waaw kon yow bu fekkee ni bu fekkee ni say maamaat say maamaat bëgg Muhammad bëgg Muhammad gëm ko gëm ko say maam say maam bëgg Muhammad bëgg Muhammad gëm ko gëm ko say baay say baay bëgg Muhammad bëgg Muhammad gëm ko gëm ko yow yow nga bëgg ko nga bëgg ko wóolu ko wóolu ko doyloo ko doyloo ko sopp ko sopp ko def ci moom def ci moom yow kon ndax yow kon. yow kon yow kon looy waxati looy waxati dara. wax leen rek wax leen sant rek. kon ñun Seydil Hadji Malick. ne kon ñun Seydil Hadji Malick. dafa bëgg bëgg ñu texee rek. dafa bëgg ñun ñëpp ñu taxe wala déet. wala déet ah moo waral mu ni. moo waral mu ni. bokk leen ci mbég mi ñëw leen bokk ci mbég mi ndegam abu lahab ndegam abu lahab ñoo ngi woyofal fal ñoo ngi woyofal mbugalam bisu altine bésu altine bi yonent bi juddoo bi yonent bi juddoo mu kontaan mu kontaan ba goreel jàmba ba goreel jàmba waaw kon yow waaw kon yow bu fekkee ni bu fekkee ne at mu nekk at mu nekk nga màggal juddoo nga màggal juddoo moom Seydina Muhammad moom Seydina Muhammad jël sa alal jël sa alal def ca def ca lépp say nelaw lépp say nelaw ub sa kër ub sa kër lu ne nga daj ko lu ne nga daj ko yow kon looy waxati yow kon wax leen wax leen rek dara loolu sant yàlla la loolu nag sant yàlla la ah yéen guddi gii waaw yéen guddi gii kenn ku ne waroon a songu sa néeg kenn ku nekk waroon a songu sa néeg sangoo sa mbàjj sangoo sa mbàjj taal sa climatiseur taal noppalu noppalu mu jaral leen ba heure bii loola yëpp ngeen bàyyi ko ngir yàlla heure ba jaral leen ba heure bii dajaloo fii ngeen dajaloo fii jàng seen burdu jàng seen burdu tagg tagg Seydina Muhammad tagg Seydina Muhammad wax ay jalooreem wax ay jalooreem di ko def di ko def di ko def di ko def ba bis ba ba bis ba waaye sëñ bi loolu waaye sëñ bi loolu loolu lu am solo loolu nag lu am solo la daan naa dégg sama sama sëriñ Cheikh Seydi Mouhamed Mansour wax naan ne daan naa dégg sama sëriñ Cheikh Seydi Mouhamed Mansour daan wax naa daan wax naan wax naan ku demul àllarbay Moussa. ku demul àllarbay Moussa. di nga dem dimanche Firawna. di nga dem dimanche Firawna. adduna. ne adduna. diggante amu fi de. diggante de amu fi. lii. diggante lii. kenn du fi taxaw kenn du fi taxaw. kaw ngay mën a nekk kaw rek ngay mën ne nekk. wala suuf wala suuf. suuf suuf mbaa kaw mbaa kaw. amul leneen amul leneen. diggante bi amul taxawaay diggante bi amul taxawaay. boo nekkul ci lii rek. boo nekkul ci lii rek. yaa nga ca yaa lee. ñaara am nag. ñaar nag moo am. lu baax lu baax lu bon lu bon. lu baax. lu baax. yàlla. yàlla. ak aadama ak aadama lu bon lu bon. seytaane la seytaane la. te mooy iblis te mooy iblis. yaay seet nag yow nag yaay seet. nga def ci lu baax. nga def ci lu baax. lu bon nag yaag seytaane yaag kon lii ngeen def. kon nag lii ngeen def. def ci lu baax la. def ci lu baax la. kon yàlla mi mën a fay. kon nag yàlla mi mën a fay. yàlla na yàlla fay leen. yàlla na yàlla fay leen. yàlla mi mën a fay. yàlla mi mën a fay. yàlla na fay leen. yàlla na yàlla fay leen. yàlla mi mën a fay. yàlla mi mën a fay. yàlla na fay leen. yàlla na fay leen. képp ku ñëw Tiwaawan. képp ku ñëw Tiwaawan. ni nga war a gàmmoo. ni nga war a gàmmoo. pour am ca yiw wa. pour am ca yiw wa. am ca tuyaaba ja. am ca tuyaaba ja. xam nga am na ñuy gàmmu. ne xam nga am na ñuy gàmmu. mais am na itam ñuy raas déem. waaye itam am na ñuy raas déem. wala wala déet ah kay. gàmmu nag. gàmmu nag gàmmu la. gàmmu la raas déem. raas déem moom raas déem la raas déem la. Seydina Muhammad. Seydina Muhammad. bu ñuy màggal juddoom. bu ñuy màggal juddoom. nañ ko màggal ci jaamu yàlla. nañ ko màggal ci jaamu yàlla. nañ ko màggal ci ay azkar nañ ko maggal ci ay azkar màggal ko ci tagg ko kañ ko màggal ko ci tagg ko kañ ko màggal ko ci jàng alquran màggal ko ci jàng alquran màggal ko ci doxuk bokk. màggal ko ci doxuk bokk. màggal ko ci sell. màggal ko ci sell. màggal ko ci ba ci teet lépp lu xaraam. màggal ko ci teet lépp lu xaraam. loolu la Seydi Hadji Malick bëgg. loolu la Seydi Hadji Malick bëgg. kuy màggal juddug yeneen. képp kuy màggal guddig juddug yeneen bi. nga màggale ko nii. nga màggale ko nii. moo tax mu ni. moo tax mu ni. ala azimu. ala azimu. laylal wilaadati. laylal wilaadati. xisbatan. xisbatan. ci kaw nag. ci kaw nag. idaa lam yakun. idaa lam yakun. naxwal xaraam. naxwal xaraami udulu udulu say may nee na Seydaaji na na ngeen màggal juddug yonent bi na ngeen màggal juddug yonent bi ngir sàkku tuyaaba ngir sàkku tuyaaba ci kaw nag ci kaw nag ngeen bañ a dugal ngeen bañ caa dugal ngeen bañ caa dugal lu xaraam lu xaraam ak lu yàlla tere ak lu yàlla tere kon yéen mbooloo mi ne kon yéen mbooloo mi loolu moo nekkoon dénkaane sëriñ bi ne ne loolu moo nekkoon dénkaane li loolu moo nekkoon ndénkaane nekkoon ndénkaane li yal na yàlla faj aajo yëpp ñaan ci yàlla gàmm gi jàmm yàlla na ko yàlla def dem ak dàmm ñëw dàmm ñëpp ñëw teewaat ak dàmm ñii bi sëg dàmm ak amin ya rabbal amin yaa rabbal aalamiin amin allahumma amin amin allahumma amin yaa rabbal aalamiin allahumma amin اللهم آمين اللهم آمين يا رب ñuy raay leen na ñëpp toog na Mustafa Amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na be